su ma juumul su ma juumul. Mhm. mu daje mu def deux défaites consécutives. waaw naka euh, euh, avant tout euh, dañ koy encouragé bu baax a baax di félicité ki nga xam ne mooy booy ñaar 2 ñu doon bëreel di waxal Manick Kaïré na ko làmb nii la quoi parce que làmb ñaar ci amaa Saliou il faut nit ñi xam ko muy victoire ak défaite boo ci bañ bul tax ngem waaye nag kuy génn sa kër da ñaan yàlla yàlla may la ndam parce que mooy li wax naan làmb folo waaye kuñ ci daan nga rus waaye ku ci daan am succès euh, Mbagnick Kaïré ñu ñu constaté wu depuis un bout temps pour mu am ay victoire ci làmb day xaw a metti parce que souvent man dama naan euh, man des fois sax dama tey sax dama naan Boy Kaïré laay blâmer quoi. Ah, waaw li li tax may blâmer Boy Kaïré mooy Mbagnick mu nekk ci ay combat depuis un bout de temps euh, heure bu jëlee mbër mi nga xam ni moo xaw a supérieur tuuti day ñàkk kon waroon na mën a defaraat carrière bi tuuti wutal ko combat dëgg la. ku daanul ku daanul ku daanul champion doo nekk champion mais Magny Kaïré toll na ci làmb foo xam ne war nañ ko mën a xoolee adversaire yu baax xam nga la moo tax euh, Maxi Margane neex ma Saliou Maxi Margane ay mbërëm da dañu wutale adversaire yu baax adversaire potentiel yoo xam ne bu ñu ñëwee xam na ni ay mbërëm moo la mën mais tey mënoo jël sa doom chaque fois buy génn nga bëgg ko jox combat boo xam ne combat wu jànk la dañu ba benn moment da ngay user xale bi xale boo ko gisee bu mu signé koo tey gis nañ Magny Kaïré bu pare bi mu signé koo tey gis nañ ma ñu ma boo xam ne entraîné na ni mu war a entraîné ba pare il était confiant parce que boo gisee ma ñu bu mu tuusee ak bi muy dugg ci géew bi ak li mu bëri yëpp baax na mais lenn daal laa muy suma muy Boy Kairé du suma père du suma xarit mu na ko père mu naa mu ne ko dama lay am lu ma lay dénk mooy ma kayre jëlaat ko nga defaraat ko nga ñaaxaat ko nga xool ko adversaire bu baax bu fekkee bëgg nga mu nekk mbër ba léegi am na adversaire yoo xam ne heure boo ko joxaatee rek manque de chance da am. te xam nga làmb dafa am loo xam ne Saliou il faut nit ñi xam ko ci làmb làmb lenn la xamu muy lenn muy confiance te mbir bu amul confiance pour mu daan day métti te confiance mi ngi commencé ci ñi lay ngemb confiance mi ngi commencé ci ñi lay yóbbu commencé ci ñi nga xam ni ñoom ngay àndal di lang di lang di ànd ak ñoom dem gauche à droite ñoo lay dellu soit ci làmb te ma ñu kay rek fi ñu toll nii tey li mu bëree tey gis nañ ni manque de confiance moo ko daan tey parce que foofu lañ doon ñëw. waaw tey soo doon dëgg tëggal. Euh, hmm. Manickaire nu muy nu muy bëree tey. waaw non Manickaire tey ni mu. erreur yi mu def ak erreur yi euh, euh, bi comment bi commencé teg na ko ci yoon. bëri na bërëb bu jaar yoon. wan na ni tey combat wu la wan na ni tey dama war a ñëw nengañ sama yaram fii arène nationale tey waruma fay daanu loolu la bëree mais nag dafa def erreur ci biir bëreem boo bëree koo xam ne moo la mag ci làmb action booy def nga war a doon action bu wóor. boo jógee ci yi nga jógee jóge ci ay defet bu ñëwaatee ci làmb lépp looy def Saliou dafa war a leer ma ñu kayre tey li mu bëre man law daxooruma ko xam nga daxooruma ci xam naa ma ñu kayre seetaan naa ko mbapat seetaan naa ko entraînement am ba pare doole ba pare am na doole il faut loolu ñu xam ko tamit ma ñu kayre bi mu simee ko da xam ne am na doole soo mënee bëree am doole am encadrement bu baax kon dafa am noo war a bëree. te combat tey bi du woon combat boo xam ne Manick dafa waroon ñëw saax saaxee ko noonu jël ko daal mel ni comme si laisser aller laisser aller la bëri quoi parce que mbër mu mel ni Boy Niang Saliou nga jàppante ak moom bëgg a tante loo xam ni mënul nekk mais mbër xanaa balaa ngaa tante dara da ngay jàpp. mais cons bi ñu cons bi noonu la woon est-ce que. waaw waaw ni ñu ko conseillé baax na xam nga baax na parce que dafa am ci li mu jógee da doon ñëw tey pour wane ni carrément moom am na jom am na fulla am na fayda te loolu la bëree tey cons na combat bi teg na ko ci yoon tey bu jëloon xola tey jëloon nul moom a gënaloon foofu mu daanu zal xam nga lu tax parce que Magny Kairé dafa am xale ñu ma àndaloon dugal nañ jom ci làmb bàyyi nañ ko fi ku ci mel ni Jacob Baldé Pokola ñun ñëpp ak Albouri tey ñu tuddati ay Diop doy ñëpp ay raxam lañ ku ci mel ni Ibou Afia ay raxam lañ ñun ñëpp ci làmb rax ci làmb nag. ajowul ni yaa ajowul mag yaa dem mag ci làmb mooy nit boo ko judoo ci làmb yaa ko mag ci làmb sa raq la ci làmb tey boo gisee ñooñu tey dynamique bi ñu nekk mooy ça montre que ni euh, seen ay combat mais seen i mais mais mais seen encadrement dañ lañ koy xoolal ku ci mel ni ma ñu kee mais waratul bëri ay combat yoo xam ne mais combat wu sa aller la mais Karim man tey mun naa ne dañ ko sacrifier parce que man tey barki démb am na ku ma ci waxtaanal ma ne ko ma ñu kee ci mu dugg waru mbër bu am na ci ay pro tolof tolof yi muy nekk Saliou dafa nga war wuta adversaire bu baax mais a ñu kay rek fullaam ak faydam la indi tey mais li mu bëre nag dafa dem ba dernier moment mu xawoon naagu xam nga des fois di nga bëri mbër nga tekkale teggi teggi tegaat da nga dem ba benn moment da nga naan li ma doon def entraînement xaaral ma def ko loolu moo ko nax tey tey nag yàlla moo tuddoon ni tey Mbagnick du daan moo tax tey Mbagnick ñax boo ñaa dëy nag moom it ñu ngi koy encouragé bu baax euh, di ko félicité. foofu la ñuy ñëw sax tey soo gisee waaw dëgg la. jëloon euh, bañ a kër est-ce xamuloon du risque parce que léegi dafa am loo am scénario moom dafa xew Saliou muy grand contre petit ci grand contre boobu la mañi kayre dugg mais mënuñ dugg ci beneen grand bu dul Maguette Seck moom ngay wax noonu waru ci woon dugg xam nga waru ci woon dugg parce que tey doo ñëw fekk mbër moo xam ne dafa bëgg a nekk ci ay tolof tolof bëgg a yéeg yow ngay xale nekk ci tuuti tolof tolof mais da koy jëli pour quelle raison ma ñu kay tey bu taxoon na tey man dama bëgg a bëri zos zos koy may sens ma ñu kay tey bu bëri adversaire yu bëri yoo xam ne ñu ci làmb ji ay adversaire potentiel lañ kii di euh, kii di Cheikh Niang tey ma ñu kay war na mën a bëri moom ñun ñëpp tey Manick Kaïré war na mën a bëri war na mën ki nga xam ne mooy mañi Kaïré Manick Kaïré Manick Kaïré lan lay yàqanti man daal tey en tout cas boo bëggee dëgg dëgg Saliou tey mere naa waa équipe Soumbédioune non mere naa naa ah. vraiment mere waaw équipe Soumbédioune mën na bañ a nekk ci encadrement bi mais xam ci li mu nekk sur les combats. yi ñuy yi jël. Euh, écurie Soumbédioune écurie bu mag la écurie bu mag la ku fa nekk ñu ne Boy Kéré doy na Boy Kéré moom kese mën naa entraîner na xale yi mun na leen conseiller dëggu ma de en tant que papa ak doom mën na leen tàggat ci technique jàngal leen xeex wax leen sa def boo bëggee développé seen muscle développé ni nga ko defee nii moom di Boy Kéré mën na ko ndax dafa jóge ci écurie bu mag dafa def ci làmb loo xam ne kenn defu ko ba ba jamono yuñ toll nii mooy le lutteur bu ëpp victoire ci làmb ci bi nga xam moom ay génération ñoom Moustapha Guèye ak ñooñu ba nii may waxee yow Boy Kéré mu ëpp victoire kon tey Boy Kéré des na moom it mu toogaat xoolaat fan la jël ci làmb mais nag euh, ak yor ay xale ñu naan dama bëgg a bëri dama a bëri rek ba tax nga ne ñu wutal ay combat man gëmuma loolu Saliou man dama gëm xale day nekk ci Ikili nga jël ko mais Serigne Ndiaye numéro 2 ngi nii tey euh, ki nga xam ne mooy Doudou Sané mais ñu ngi ci ñu ngi simple bi général Malika kañ la gën a ci làmb ñu ngi simple bi. Mbagnick Kairé tey li papam waroon def tey mooy lenn na ko jëlee sa ngemb li nga taxu ko wàcc Adrien Senghor terrain gaal gi dem Fimela dem Mbour Joal fu ne nga dem fa Niodior fu dégg ne mbapat am na fa Mbagnick Kairé dafa war a dem bu fa demee dina gën a yokk xam-xamu bërim dooleem dina gën a yokk te nag Saliou dinaa la wax dara nga xam ko Saliou Saliou gis nga jamono yi ñu toll nii mbër yi la ëpp contact ci làmb ñooy dan ci làmb ne ma mañu kay kon kontaagul de dëgg baax li ma wax mbër bi la ëpp bi ëpp bii mbapat parce que gis nga mbapat bi Saliou da ngay dem ba da ngay tàmm defet dañ lay daan tey suba nga daanu nga daan tey suba ñu daan la ba da ngay miin defet après defet day bokk ci yow ba nga xam ne sooy bëri sax dootoo ko sóor te xam lu gën a métti mooy di bëri di sóor defet dafa métti te mañu kay rek ni mu bëri tey da ngay xam ne kii dafa sóor defet xool ko bi mu daanoo toog ni ci géew bi adunaam day tukki parce que danaa li ma war a def na li ma war a def def naa ko li ma war a wax naa ko ñi ma war a àndal àndal naa ko sam papa fu fu war a demal ñu ñaanal ma dem na fa conseil bu mu xalaat papam jox na ko tey barki Demba Ndiaye magam dafa ñàkk tey moom dana doon bëri combat boo xam ne combat bu métti la parce que bul fàtte ni euh, ki nga xam ni mooy Zarko dafa daan barki Demba Ndiaye ki nga xam ni mooy Diène Kaïré tey moom mu ñëw jëlaat combat war a bëriwaat ndam gëj a dugg seen kër war fa dugalaat ndam loolu lépp du ko bëriwaale tey mu nekk combat bu metti mu nekk combat boo xam ne tey bu ko daanoon Saliou day boo bokkaat ci lancé bi parce que tey boo yàlla dimbaloon mu daan ay caatu Daouda Fall ñun ñëpp dañuy nekk ci kanamam parce que tamit euh, day duggaat foofu non si Manick Kaïré day dugg foofu day bëri ñoom ay zone technique ngay gis nii ñoom ñëpp euh, ak ñoom Manick Kaïré benn génération bi la dañu war a bëri parce que benn taille bi la parce que centre de bi ñu yor ñoom war nañ mën a bëri seen biir tey Manick Kaïré bu daanoon tey am na droit bëri ki nga xam ne mooy mujja ñaan ko loxo ñaan ko kàlla ko loxo bëgg bëri yow. mais loolu lu koy def xam nga lu ko lu mooy adversaire boo xam ne adversaire bu ñuy pare la mooy adversaire boo xam ne dañ koy respecté mooy adversaire boo xam ne boo bëri moom bu la daanee sax dinañ xam ne kii moo la war a daan daan na la mais tey balaa meew ma ki nga xam ne mooy boo ñaa deux mi daan ma ñu keebe mais tey ah mais tey waru ko daan dëgg lay wax ma ñu keebe ci lancé mu nekk nii nekk xale am doole wala bëri noo non noo ma ñu keebe tey combat bi waru koon ñàkk. waaye tey nag dañ ne booy Boy Niang ñaa Niang fi mu toll nii nag tegaat na paa ci te li mu bëree day noo non xale yi am nañ problème. seet tët tët tët tët tët tët Maguette. Maguette Boy Niang deux. non ma Maguette fi mu toll nii mais na jël Tapha Gueye numéro deux. combat la combat la alburax Maguette Niang Tapha Gueye numéro deux ko ay mag lañ. nan leen boole Cheikh ñaa ngi côté bi toog moom it man ku ma damay damay bëre Jokal ñoom ñoo bokk génération. ki nga xam ne mooy bébé saalum sax jël na combat mais ci foofu la bokk ci tournoi boobu lañ bokk ñoom dañu ay mag yoo xam ne ñii fi ñu yaakaar ñii yaakaar ne dañoo jeexal Saloum jeexaloo guñ de seen xaalis lañ ci làmb ci gis nga làmb ji sa waay naka la boo waree teggi di nga teggi am na ñoo xam ne dañuy jëm ba jëm mag la doo ko teggi man ñu kay ñu koy encouragé bu baax a baax euh, di ko ne làmb la rek euh, victoire ak défaite la euh, di leen nga gën a góorlu bu mu tax nga bàyyi làmb ndax chaque jour dama koy wax ki nga xam ne mooy métrage bëri na cinq grands combats ñàkk yëpp te métrage moo nekkoon ki nga xam ne mooy leet naaw Modou Lo Lo Modou Lo ak métrage ñoo daa ànd guddeeg bëccëg métrage xoolal mbapat boo xalaat Saliou dem na fa daan xoolal tournoi bu ñu teg tournoi def lañ lu leen métrage jël na ko mais amul sens ci làmb bëri na ci cinq combats mais cinq défaites la ci am tey bërki Demba Ndiaye gis nga ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux di grand frère am bëri at Ama Baldé la ñaax mais tey manière bi mu ko ñaaxee tey combat am ñu ngi dégg sax di lam-lam ne taxawaan na kon tey ma ñu kay nu mu bëree tey man gëm naa ni promoteur tey balaa moo tëdd dina promoteur dina ko seet si waxam moom parce que tey duy na stade bi attention nañu wax nag non léegi waa Medina ñi Saliou ngi gis ñu gërëm Medina Medina léegi dañuy ah, que gis naa open par gis naa fa waa xale Medina yi ku ci mel ni waa Afia gis naa fa ki ko may ko doole yokku ko parce que gis caatu Medina ñëpp ñëw parce que mooy woon gis nga Pikine génn war nañ secret bi. parcelle wane nañu ñoom bu ànd di contact moo leen may doole moo tax ñu ngi koy def mais Pikine tamit am na lu ñu wane Saliou xam nga mooy lan ku ci am sa bés ñëw taxaw euh, di wax ni làmb ji sàjj na waaye nag Saliou maa ngi waat lu rëy diggante Tapha Tine ak ki nga xam ni mooy Balla Gaye numéro 2 est-ce que xam nga ni Saliou Tapha Tine Balla Gaye naa seen vidéo bi nga xam ne moom la ñu bëree fi nga xam ne mooy Mbapat Assane Diouf. vidéo bu leer nañ exclusivité bi fii laa koy tege ba pare seeti mbër na am na mbër moo xam ne bëri woon na ci tournoi bi am na mbër bu ci bëre woon ancien mbër la am na lu ma dëgg ci làmb ji te dinaa ko seeti waxtaan ak moom ñu indil ko wax leen ni ay le 21 Saliou fa laay tëjee na la tëjal